mbokk yi fi daje maa ngi leen di nuyu bu te di leen siyaara di leen sant kàddu yoo xam ne yii maa ngi ko bëgg a ngir ndigal yàlla dogal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 doo yóbbaale lor jariñ yi nga yóbbu boo ñëwee bay dem te yóbbu njariñ nag mooy def niñ ko digle dañ ko doxale noonu loolu mu ngi jëm ci màggal gi ndax mbooloo mi daje gi ñu fi daje day bari lool li nga xam ne moo jëm ci muxaddamatul xidma nag ñoom ñi nga xam ne ñoo yor jumaa ji am na ñaari wax yu ma fi yu ma ci mës a wax yoo xam ne danaa ko danaa ko ci leeral ma sama wax ne jumaa ji day ay yoon daf ko wër te yoon yi oto ciy jaar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 ndax xam ngeen ni bis bi sëñ Touba yàlla rek a tax mu woote ko ñu di ci séentu nag ndimbal ci ki mu di ko def xam nañ ne am nañ yaakaar ne sëñ bi yàlla mu tax mu di ko def moo yor moo moom dogal yëpp kon nag sëñ Tuubaa baax gi mu baax ak woote gi mu wooteel bis bi ngir yàlla séentu nañ ne yàlla mi yor dogal yi dogal yu rafet rek la ñu ciy defal incha kon nag noo ngi ñaanal sëñ Muntaxa mu yàgg fi te mu ànd ak wér ba li bëgg a liggéey sëñ Tuubaa lépp mu liggéey ko waaye wax ne sëñ Muntaxa daal li nu war ci moom mun toogee ba yàgg nu dem siyaare ji ko jébbaluwaat yeesluwaat dellu toogi fan jóge woon te lu mu digal mu nekk ca loolu day ku ko def murit piir nga waaw kon nag gannaaw danoo bëgg a doon murit piir nañ sax ci ndigalam rek lu mu sant rek nañ nekk ca loola noo leen di sant leen gërëm di leen ñaanal sëñ bi bég nañ ci ñëw gi sëñ Fallou bég nañ ci ñëw gi di sant yàlla itam nag ci bi ngeen nu boolee ci liggéey bi ngeen di liggéeyal sëñ Tuubaa jërëjëf talal leen nañu commencé من مالكي فيك إسعادا بلا أودين ذا توبة فيك أيضا ماضيا أبدا بالذكر والشكر والقرآن بالأحد إليه قد تبت في شعبان عن رجب مجددا فيك فاشهد لي بترك ددين لاشهد بأخذ كتاب الله فيك هنا إلى ارتحالي يوم السبت والأحد واشهد بحبك حبا ذات يا أملي واشهد بحبك حبا ذات يا أملي وكن حبيبي يوم الهول والكمد إني أحبك يا شهر الصيام بلا غش فأهلا وترحيبا بلا عدد إني أحبك يا شهر الصيام بلا غش فأهلا وترحيبا بلا عدد